pour mu xamné ñu ngi dem ci audition liñ ci yaakaaroon mooy audition bi xalaat nañ ni war na mën a nekk euh, le 3 novembre bi ñu jëm ndaxte loi dafa wax ni bu fekkee ne dañuy entendre nit dans le dans le cadre de l'instruction dañu war a informer ses avocats pour que au moins ñu am un délai bu 48 heures pour préparer sen client pour face à face bi nga xamné war na ko ñoo def mais aussi pour mu am possibilité ñew fofu ci cabinet juge bi pour mu set li nga xamné moy dossier bi waxon na leen ne leen convoqué ki nga Ousmane Sonko ay avocat mi tay euh, suba le 1er novembre donc délai bi day commencé courir à partir de mercredi donc si ñu ko faire mercredi diganté mercredi ak euh, jeudi amuñu sax 48 heures donc 24 heures lan am parce que lundi a commencé lundi euh, comment on appelle du moins mercredi ou jeudi mooy délai Moy 24 heures normalement bataille de procédure la ñu war a nekk waxtu wi may wax ak parce que kenn mënul jot kenn du ben avocat te du Ousmane Sonko du kenn ku jege tribunal bi ku la war a wax li nga xamné mom moy décision mais li ci nek moy que une euh, rude bataille de procédure moo fay nek ñu naan ko code pénal code de procédure pénale d'accord na li wala code de procédure pénale d'accordul li ngeen di def taxna démb maa ngi leen doon wax ni au moins 14 avocats moo constitué pour défendre ki nga xam ne maître mooy euh, Ousmane Sonko parmi ces 14 avocats am na ci kenn koo xam il est entré dans le dossier en dernier ressort boole ci nekkul juridiction bu Dakar juridiction bu gën a sori la Ziguinchor la jóge muy maître Gaoussou Bojan maître Gaoussou Bodian moy le dernier avocat bi nga xamné dafa dugg ci li nga xamné moy dossier pour constituer pour Ousmane Sonko or ku mel non nga xamné ci benen juridiction la nek kooku normalement war nañ ko mën jox 8 jours informé ko ne dañuy auditionné ki nga xamné moy client taxna tax na mu mën def déplacement de Ziguinchor à à à Dakar pour mu ñëw bokku mu nekk au même sinon au même niveau d'information que yeneen avocats yi pour que ñu mën a préparer dossier bi parce que li nga xam ne mooy article 105 bu code pénal code de procédure pénale du moins moo ko prévoir boole ci wax naa leen ni délai wu 48 heures bi nga xam ne avocats yi war nañ ko am pour que ñu mën a préparer seen client amuñu ko mais won leen ni ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko moom ci boppam mom mo yakamti c'est lui qui va en finir avec ce dossier ba taxna na mu arrêté nemmeeku le 3 novembre mom le préparer préparé comme ni ma leen le 3 février 2021 le Adji porte plainte le 3 mars 2021 le ñu arrêté Ousmane Sonko pour tout à l'ordre public et tout ce qui s'ensuit gana biñ convoqué devant le doyen des juges le 3 novembre bi lañu bëgg toutes les forces de sécurité et de défense mais surtout le luy police ak les gendarme ci le bare en tout cas sur l'ensemble du territoire national déployé nañ leen ci alerte maximum parce que pour nous, à la kulli il faut que yefi yi mu dem dara munul tax ñu repousser li nga xam ne date bi nga prévoir nan ko le 3 novembre la ma leen waxoon démb wax leen ko barki démb ci laay delluwaat tout le temps le piège ce n'est pas qu'il y a un élément nouveau un fait nouveau dans le dossier fait nouveau moy lo information bu bu changer toute la donne mu changer dossier bi ci bopam amul ci élément nouveau voilà fait nouveau amul ci dossier bi ay nouveau li nga xamné tay avocat Ousmane Sonko waxtu wi may wax ak ils sont encore en conclave wax des juges mu auditionné ki di madame taal madame Tall bu fekkee ne am ngeen souvenir mooy ku jigéen ki nga xam ne moo daan liggéeyloo Adji saar ci këram Adji Sarr nekkoon jànkam di nettoyer salon bi waaye ak de temps en temps nee na Adji Sarr da doon yëg ci kaw di ko nettoyer appartement am su amee ay clients yu ñëw fekk moom dafa déplacé wu Adji Sarr jox leen bagage am madame boobu mu ñu njëkk a ki nga xam ne mooy aji Sarr ba wax ni Adji Sarr nee na ko temps yi Euh, dafa am ay kilifa lay defal ay deal parce que affaire Ousmane Sonko ainsi de suite te kooku la waxoon ni Ousmane Sonko moom moo ko moo ko bu ngeen amé souvenir parce que en tant que témoin bu am dayo bobu témoin bu am importance bobu bu fekkee ne justice dafa ne euh, la justice dafay liggéey pour mu xam fu dëgg fété ku melni maram tal bobu buñ ko dégloo nañ xam né complot la bo xamné ne nañ ko te yàgg na maram tal kenn dégluwu ko ki nga xam ne mooy MC Niass moom mi nga xam ne Adji Sarr wax na ko avoué ko ne ko lii yëpp complot la dañ may liggéeyloo moom mi nga xam ne yónnee na ko audio bi nga xam ne mooy bu muy waxtaan ak ñoom euh, Mamour Diallo nee nañu avocat ne nee nañu bëgg nañu ngeen dugal tamit ci dossier bi ki nga xam ne mooy MC euh, mooy MC Niass ñu déglu ko parce que moom it. témoin bu capital la ci yef yi mais témoin bu capital du yem fofu am nañu ko xam mo organiser lepp am nañu ko xam mo wax lepp moy kan moy ki nga xam euh moy Mamour Diallo mi nga xam ne depuis si njalbeen waxoon na len ka gannaaw bi ko Ousmane Sonko feñalee li nga xam moy histoire 94 milliards mo wër ci ay nit ne leen Ousmane Sonko il va le regretter ki dinaa ko noppiloo à jamais Mamour Diallo boobu moo nekkoon dans la conversation ak Adji Sarr keroog ma leen waxee Adji Sarr dafa tëbbal ko ñu leen du dëgg moom moo ñëwoon encore di waxtaan ak Adji Sarr Adji Sarr mu confirmer waat ko ne ko euh, mu ne ko jaruloon ngay tëb parce que leneen ak leneen mun la ci fekk ba pare ne ko ne ma la waxoon ca laa nekk mooy affaire euh, euh, affaire passeport diplomatique donc tey li nga xam ne moom la avocat yi bëgg mooy nañu delluwaat waajooju pour ñu auditionner ko mais témoin yu ñooñu duñu Mamour Diallo du témoin kase parce que Mamour Diallo est capital et central dans ce dossier mais kenn dégluwu ko moo tax waxtu wi may wax ak yéen ci bureau doyen des juges bu fa avocat yi nekkee lu ñuy xeex mooy le respect de ces codes de procédure euh, pénale mais aussi dañu bëgg ñu dugal ñi nga xam ne ñoo ñoo xam ne seen témoignage dafa important mbokk yi maa ngi leen di ñaan encore ñu partager vidéo bi ba le maximum de personnes mën si jot live bi lu du gudd incha allah. sëriñ xaadim mbàkke tanzil di ku yàlla may dénk ko xam-xam boo xamante ni fii ci diwaanu sénégal kenn dootu ko natable muy yëngatu ci wàllum ràbb wàllum pàcc wàllum gisaane yow mi toog di ma déglu nga am ay jafe-jafe ci wàllum këyit wala nga xëccoo place wala sax nga néew kàttan dawal gaaw seeti sëriñ xaadim mbàkke tanzil boo fa demee lépp dafay góngoo dawal gaaw woo ko ci 77 589 65 97 gannaaw loolu bu fekkee ni doyen des juges nangu na li nga xam ne moom la ko avocat yi di ñaan donc fay ubbiwaat beneen buntu parce que yeneen témoins yu bees war nañ dugg donc dafay repousser waat encore li nga xam ne mooy la possibilité pour nous tenir euh, audition du fond bu Ousmane Sonko même bu fekkee ni euh, toutes les mesures sont prises déploiement bu extraordinaire def nañu ko ci biir Ndakaaru euh, ñu xalaat ni ay ay ay ay ay ay laale wala ay xëccoo wala ay xeex mën na am ci Ndakaaru taxna na la ma leen mars 2021. mille viol amu fi parce que pour nous wax viol il faut la matérialité et il faut l'imputabilité ñu ne yëf yi am bu pare diwa def certificat médical mi nga xam mom mo wara leral a leeral na amut ba pare amul lenn lo xam ne tapalé ak waxi Adji sar lo woré na ni li amna donc amul lenn ñu bari wonan ma ñu bari agité na ñi naan mënuma lek ñi naan sama tension dafa juk parce que ñi nee nañ gaay paré nañu bu démé dañ koy japp dañ koy tié pour ñu mën ko japp pour ñu mën ko tié il faut que ñu am ay élément ay charge juge d'instruction dafa wara am charge yo xamné mom lay retenir contre Ousmane Sonko mais amul ben charge charge moy ay élément bu fekké né Sénégal dañuy wax police euh, né ko indil euh, des indices ci yeneen pays développé yi balaa ñoo jàpp nit wala ñu convoqué nit dafay fekk ñu ay éléments de preuve contre yow Sénégal dañu ne des indices concordants tendant à motiver que nit qui moo def li des indices juge pour que mu mën a def il faut mu am lu ñuy wax charge ci dossier bi amu ci bi ñu comprendre ci mars 2021 ni dossier bi amul dañ na nañu seet leneen lu ñu wax des des des des infractions opportunistes des infractions opportunistes mooy euh, euh, genre ndëgg sërëx boo xam ne dañ koy lal lal nit ñi pour ñu xool naka lañ leen mën a dugal ci guuta moo tax ñu tendre leen piège pour nous jaar ci corniche ouest bi gannaaw corniche ouest bi ñu ba ñu jël fa fa yu Ousmane Sonko topp ko pour trouble à l'ordre public atteinte à la sûreté de l'État appel ainsi de suite ainsi de suite finalement charge comment on appelle euh, infraction yooyu gis ngeen ni abandonné parce que pour nous juge Samba ko mu def Samba encore kon Ousmane Sonko fële nga assemblée nationale pour ñu lever immunité parlementaire am ci lu finalement dañ ko mujj bàyyi léegi président Macky Sall tous les moyens gannaaw bi leen ni du fi amat gannaaw le maximum amna la garantie ni gars dañ koy top faut ni c'est le moment peut-être de faire limbug mais limbug il faut que nous ñu ko il faut mu am ay juges yo xam nous ñoo ci and ak juges il faut au moins ñu am ay éléments mais éléments malheureusement mom la ñu ñak ci dossier bi donc la seule issue benn buntu benn kaddu mu mun a jib keroog ci bureau doyen des juges gannaaw bu ñu déglu Ousmane Sonko cest bu ñu bëggee dañuy relancer affaire yi nga xam ne dañuy woo euh, dañuy woo yeneen témoins yi ma leen tuddal léegi mooy MC mooy Maram Tall mooy Mamour Diallo wala juge bi ne du ma leen déglu léegi nag juge bi ne damay déglu Ousmane Sonko à telle date bu boobaa Ousmane Sonko day ñëw mu ñëw wuy ji. à la date bi nga xamné mom la doyen des juges parce que Ousmane Sonko ci pare prêt pour en finir avec ce dossier parce que je dara ci ñu la ak at ak lu dafa doy mom na ko turam ñew donc décision ce meuna a gis ay journaliste kat ñu bind juge inculpé daf koy placer sous mandat de dépôt ay wax yi loolu ay waxi tappale la ay waxu euh, titre nit ñi la pour nga mëna mettre quelqu'un sous mandat de dépôt il faut nga am ay éléments yoy mëna retenir contre lui il n'y a aucun élément dans ce dossier dara ba dara booloo jeex amuñu ko dudul waxi tapalé bu aji sar ba paré xam ngeen ni aji sar amna ay fan déggatoo len ko ñi nga xam ne bàjjanam yi ko waroon xanaa capitaine yu bees yi mais ñeneen ñëpp tey kenn ku ne pare na pour rocceeku ci dossier bi parce que ñoom finalement ñoom ñoo ñëw jàmbarloo ak Adji Sarr parce que Adji Sarr bi mu ne dafa bëgg bàyyi dossier bi dañ ko ci poussé ñu defaale si ñoom seen buzz ak seen business tey Adji tey ñoom ñu bëgg ci génn fa Adji Sarr nag waral rester toute seule foofu la ñu toll léegi une décision bi juge d'instruction gannaaw bu dégloo Ousmane Sonko parce que ba n'est c'est pas définitif waxuñu ni le trois lañ koy entendre parce que wax naa leen nga xam ne blocage yi d'abord maître Gaussou, Bojan, mi nga xam code de procédure pénale dafa ne bu fekkee avocat bu constitué war nañ ko huit jours article 105 du code de procédure pénale moo wax moom constitué constitué pour avocat donc il faut ñu may ko moom temps mais juge bi mo done du ma ko def bu boba ñu indi ay lu ñuy wax ay vices de procédure wala yu mel noonu deuxième chose nee nañu dañu bëgg ñetti témoin ñu duggal leen ci dossier bi moy MC Niass euh Mamour Diallo moy madame tal bi nga xam ne kenn déglu leen ci instruction bi parce que boo dee instruction bu sérieuse la képp koo xam ne tudd nañ la ci. war nañ la mën a auditionné war nañ la mën a woo ñu la kaay loo ca xam ñu def ko du ñu yem ci audition kase juge bi par tous les moins war na uti ay preuve ay réquisition téléphonique wala yeneen ak yeneen ak yeneen yu wane ni diw ak diw laale nañ ci dossier bi wax nañ ci lii mais gis ngeen ni loolu lépp dara amu ci il est pratiquement léegi euh, vingt deux heures du moins légui 23 h jot mais ba légui fumée blanche bi nga xamné moy wax né diw moy pape bu bees bi fumée blanche bi nga xamné ñun journalistes mom lañuy xaar pour nous wax né ok c'est bon c'est la date du 3 ba léegi amaguñu fumée blanche bobu pendant ce temps li nga xamné mom moom lañ jox journaliste moy la xew fële ca Cikki Cikki wetu jass moy le ma massa wax dañuy créer ay infraction opportuniste euh dañ leen di lal lalal ay ndëgg sërëx parce que la xew ci ki mënoon na xew fële ca malikunda heureusement gendarmerie bi mu yëgee yëf yi dafa anticiper dem dox diggante jeunes yi nga xam ne nervi yi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon taxaw ca mairie ba seen diggante ak waa Pastef dama koy wax dama koy bamtuwaat tout le temps bu ñu doon créer cent mille morts dañ koy créer juste pour ñu pouvoir mën a wax ni suba Ousmane Sonko lañ koy teg ci ndodam bu bu par exemple fàtte ngeen ni quatorze morts yi bi ñu ci jógee. ñu une commission parlementaire day commission parlementaire une commission wax nañu yi Ousmane Sonko créé ci et plus ñuy jege élection présidentielle bi nga et c'est risqué plus déclaration ñenn ñi les uns et les autres daf parce que su ma daf may inquiété am na mais dama xam lu fitna di def lo xam yeen ñi ñii wala yeen ñi bëgg fitna da ngeen ko xamul parce que ko xam fitna da ngay doyal sëkk ci fitna il faut ñu leen kay rappeler tout le temps dans le désordre rien ne se construit tay nee nañu aji sar ben xalé bu jigéen la dañ ko violé est-ce que xam ngeen ni trouble grave à l'ordre public bu amee xeex bu dëggantaan te bu Adji Sarr xam nañ ñëpp xam nañ ne tappale la yàlla rek xam benn policier bu nekk boppam lay tal lu tal sax protéger jabaram ak i doomam ak i njabootam boppam lay tal juge bu ne boppam lay tal lu tal sax tal ay jabaram ak i doomam ak i affaire yooyu alors désordre boobu bu nu ko dara jaral ñu koy indi ci Sénégal képp ku yaakaar ci Babacar Touré pour mu wax leen ni jël leen xeer pare leen défendre leen reyante leen da ngay nax sa bopp parce que man du ma wax loolu dama ko dund dama ci doyal sëkk ak bar ak barke. dama gis nii yëpp nu mu commencé Côte d'Ivoire créé benn tapale mooy ci tapale bi jàpp ci tapale bi ba mu indil leen guuta Côte d'Ivoire nationalité Alassane Ouattara lañ doon wax pour nationalité douteuse. ñoom Thia Koné euh, ñoom Paul Ndré ñoo ñu tëgg ko ñaata junni nit ñoo ci dee te terewul la yàlla namm ci Alassane Ouattara mu nekk mu nekk président ñaata nit la ñoom Gbagbo et consort génnelu ci mbedd bi ñu reyante ñii dee nañu ñii ñàkk nañ seeni doom ñii ñàkk nañ seen jëkkër ñii ñàkk nañ seen njaboot Bagbo tay ak Alassane Ouattara ñoo dox main dans la main ñu dox man sumay wax waxuma pour politiciens yi te waxuma pour gone bo xam dara tam dafa tang barki dem dama ben exemple bu terre à terre ñaari boy ñu mbeukante Jakarta ñu génn ba bëgg a xeexante am gaay yu taxaw la ñoom kontaan nañu bëgg nañu bëgguñu dul seetaan cooki ma ñoo ma laaj jeunes yi lan moo jot lan lañ jotee kenn ma maa tooñ kenn maa droite mën na leen léegi juboo leen parce que pour ngeen mën ci génn kenn ma non non non parce que man xaw ma jakarta bi moom ma ko parce que kële nee ko fu la neex demal te fu la neex demal mooy waaj dafi bougé te ñu reyante ma ne ko lii yàqu ci sa oto ñaata la ci sa moto bi ñaata la mu ne ma mu ne ma ay six mille xaw ma cinq mille mu yëkkati xaalis bi jox ko nekk

jam jam c'est comme wergu yaram beus boko ñaké ñàkkee nga koy wër par tous les moyens mu jaral lu ne c'est comme yeen ñi ngeen xamné am ngeen chance am ngeen seen yaay wala am seen pap bu waxé lé nga wi taxu lé lé mu waxal lu naqadi mais beus bu génné adina tu donneras tout l'or du monde lepp lo am da ngay bëgg joko pour mu mëna a ci ne serait-ce que quelques minutes tay man fofu la tollu motax li nga xamné fekke naa ko li nga xam ne xam naa ko erreur yoo xam ne gis naa ñeneen ñu commettre ko su ma gisee sama réew ñu bëgg ko commettre ma jàkkaarloo ak Sénégal ma wax leen nii moytu leen lii moytu leen lii moytu leen lii ci kii dañu yëkkati ay jeune ne leen bu ñëwee ngeen jàkkaarloo ak Ousmane Sonko ngeen wax ko violeur mu ñëw ci dëkk bi gaay ne leen fii titre foncier wu Macky ñu am ay kàddu yu ñu yu ñu échanger waa ji topp leen violeur violeur Sonko violeur ñu ko légui puusal fi ñu pousse ko mu insister ba ñu mujjé doranté ak ñom muy indi ay blessé des deux côtés mais képp ko xamné sa deret tuuru na képp ko xamné ñak nga sa bakkan ci lo xamné yow ak yow ak nit ki rek amu leen dara lu ngeen laale jotewulu ak Sonko ci boppam wala Sonko ci boppam jotewul ak yow mais juste benn dix mille benn cinq mille wala benn waaw góor nga ci doon xaar moo tax nga créer lu mel noonu te conséquence yi kenn xamul fu mu yem li may wax c'est valable pour civil yi c'est valable pour booy jeunes yi nga xam ne dañ leen di dañ leen di dañ leen di embrigader c'est valable aussi pour ay forces de l'ordre yoo xam ne bëgg waaw góor wala bëgg ñu reconnaître leen wala bëgg suba autorité bi ne wax ak ban commandant moo nekkoon fële wala ban chef d'unité moo nekkoon fële mais félicitation mais ki war nañ ko defal dara tax na bu nu moytulee dinañu dugal réew mi ci guuta violence yu ndaw yi muy indi violence bu mag tey képp ku ne dama dama il se passe rare rien parce que fii dëkku Serigne Touba la dëkku Alaaji Maolo ainsi de suite dafa fekk demuñu gisuñu fi nga xam ne yonent bi yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ay doomam mi ki sëtam tëdd nañ fa Irak Sénégal ëppaliwu ko ay ay ay ay ay yi xam-xam ak i wuliw yi nga xam ne yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla gërëm na leen mais Irak ngi ni di tàkk kenn mënu ko régler dama dem Beyrouth ma fekk ñey yelwaan Beyrouth tey ay Syriens la Syriens ñoo yelwaan Beyrouth dëkku pays Moyen-Orient yëpp boo demee foofu ñiy jaay seen doom bu jigéen à l'âge de douze ans ay jigéen ñuy ñuy jaay seen bopp ay Syriens lañu pour la plupart alors que il y a dix ans ci ginnaaw Syrie moo nekkoon pays bu gën a rafet pays bu gën a stable pays bu gën a neex ci Moyen-Orient ci Moyen ak Proche-Orient ñoom lañ doon wax la la Suisse du Proche et du Moyen-Orient tey Syriens yi dañuy talal seen loxo di yalwaan syriens yi dañ leen di dóor ci mbeddu Beyrouth bi nga xam ne si lu mu ëppale Beyrouth yàlla rek a ko xam mais tey syriens yi ñoo nekk ci mbeddu Beyrouth di yalwaan di jaay seen doom yu jigéen à douze ans pour am lu ñu mën a dund loolu lan moo ko mën a indi fitna moo koy indi dafa mel ni fitna boobu la ñu bëgg a woote Sénégal mais li ma gëm mooy wax naa ko dama koy waxaat audition bi Ousmane Sonko nañu wuyu jakarlo ak Maham jallo andak ak ay avocat Adji sar nee ni mu amut juge bi amul dara ci tiroiram lo xam dana danaan mu ngi ni element de preuve la contre yow Ousmane Sonko amul kon juge bobu fu muy jaar ban da kay japp Ousmane Sonko dama gëm ni man bu démé bu féké le 3 la dem na mais pour dem nous nuñ koy organiser nak le jeunes di fa bëgg toutes les forces de défense et de sécurité ci dëkk bi bu ko défé sax sunu moytu lay amna fitna yo juddu fa élection 2024 bi ngeen doon xaar ñu toxal ko motax ñu jege Ousmane Sonko nan ka ka wax parce que mas naa cee wax ak moom yàgg na xale yii di di yàqule xale yii di gaañu xale yii di dee euh, soxna si euh, comment elle s'appelle euh, fàtte naa tur bi. nee na comme ñoom ñooy woote mortal combat moo tax ñuy dee si ñoom rek la féete mam Fatou moo ko wax te mu nekkoon euh, soxna bon turam dina ñëw sama xel donc nanu moytu am na jeunes yoo xam ne. ñoom ku leen jox cinq mille ku leen jox mil mille ku leen jox vingt mille attan nañu nekk ci mbedd bi provoqué mais kenn bëggul dee pour xaalis bi leen di gouvernement bi di jox alors que yow boo amee autour de toi ay jeunes yoo xam ne boo leen ne dem leen yi ñu deewi boo leen ne kaay leen ñu fekk la te jeunes yooyu nga soxla suba pour nu voté ngir yàlla nanu sàmm bakkanu jeunes yooyu ngir yàlla nanu protéger xale yooyu degré de responsabilité la moo tax wax naa ko fii amoon naa opportunité waxtaanee ko ak euh, wax ko ak Ousmane Sonko su ma sañoon jour convocation jour buy dem wuy ji moom keneen na jóg mu dem mu wuy ji bu dellu la la ko njaboot gi ñëw fekk mais c'est vrai c'est pas n'importe qui moom du woote sax nit ñi ñoo koy fekk même buy dem ci dëj nit ñi dañ koy fekki mais dafa joxe exemple boo xam ne kenn du ko masa fàtte kenn du ko masa fàtte mbooloo mu bari topp leen mun leen toog leen ngeen xaar ma man kenn ma dem su mu ñëwee ma génn si mu ñëw moom la ko yàlla may ngum mu mel ni début gouvernement Ablaye Wade yu mel noonu xawoon nañ ko gis Sénégal nga xam ne kenn ñemewutoon critiquer Abdoulaye Wade loo wax ñu la bàyyil góor gi mu liggéey période boobu Abdoulaye bu ne woon sénégalais liggéey leen six mois te doo ngeen am salaire ñëpp koy def tey yàlla dafa def Ousmane Sonko moom la yàlla jagleel loolu donc nañ leen nañu xalaat jeunes yooyu nga xam ne seen deret dafa tàng bëgguñu dégg dara lu ku leen ne opération bii plan bii fi ngeen di attaqué fi ngeen di def déedéet on a suffisamment enterré nos enfants. des ray dafa grave tellement que buñ daan japp sax nit ñi koy exécuter ña doon tirer ci kaw nit ñi pour ñu ray leen dañ leen wax mettez-vous à genoux qui tirer day mettre à genoux pour mu mais ray gens ont genre njëggal lay demander Napoléon dafa ne ñi bëgg guerre dañ ko xamut Napoléon c'était grand général nee na li tax xeex mu metti li tax xeex baaxut mu ne parce que yàlla bi mu sakkee bakkan bi mu sakkee àddina la normal mooy que doom muy suul bàyyi doom muy suul bàyyi loolu mooy dëgg doom muy suul yaayam mais mu bu fitna il faut faire très attention il faut qu'ensemble nous xamné li nga xamné euh, la paix la sécurité Nous sommes ko par tous les moyens dossier bi dara nekk ci ba dara dossier B, mënuñu ci tëj kenn kenn lañ ci mën a tëj nag mooy aji Sarr parce que keroog bu doyen des juges pare ci li nga xam ne mooy audition Ousmane Sonko bu pare dafa war a rendre une ordonnance benn la war a doon ci li ma gëm mooy non-lieu bu defee non-lieu mu ne li ñuy wax amut mu daal di jël dossier bi bu boobaa yëf yi pare na. ka ca am droit wala boog bu fekkee ne d'accord Vous day dem devant la chambre d'accusation sinon ki nga xam ne moo ci am droit mooy Ousmane Sonko mooy jël élément bi mooy jël la main boobaa mooy porter plainte contre Adji Sarr ak contre qui koo xam la la nga ci dossier bi bu gouvernement bi prendre en compte la réalité bi nga le président Macky Sall waxone am na ñoo xam ne bu ñu defee daan leen topp am ñoo xam ne bu ñu bu ñu bën na leen sa bàyyi ndax pour sauver la sécurité parce que bu dee bu dee Ousmane Sonko sax defoon na bu dee defoon na ñun fàttewuñu il y a quelque temps dund nañ fi euh, lu lu garaaw dund nañ fi lu garaaw ak les camps de concentration de Serigne Modou Kara ne a pas fàttaliku le ñi ci li ñu wax ci ñoo ci dé yalla rek xam ñaata la mais Serigne Modou Kara si bopam Autorité, ñoo opposé à ce que section de gendarmerie convoqué ko alors que là, on parle de mort d'homme ay bakkan ñoo des ci camp yoyu ñu don né dañuy def concentration mais autorité.

donc euh, foofu la ñu toll mbokk yi maa ngi euh, maa ngi jot léegi breaking news di leen wax ni gars yi ñu ngi may xamal ni ça bës boo bës boo bëggul mu yegg si rek loo bëggul mu yegg si doo ko appal bës ndëgëm appal nañ ko bës ça y ci message bu may jot léegi audition bi le troit lay nekk donc ça veut dire que li nga xam ne ñii doon nañ ko doon nañ ko ñaan mooy pour nu permettre mettre Gaussou pour nous euh, duñ ko délai bi permettre pour nous may euh, ñu auditionner du parce que c'est définitif la décision ci ma ma comme information ci ma jox comme information le 3 novembre 2022, l'histoire retiendra que Bouligny auditionnait Ousmane Sonko dans le fond. Parce que Bolen Fatini, section recherche, nous ko déglu ci cadre Adissar. Li mu euh, euh, audience de première comparution le defoon ak Sambassal. Samba Sall Ousmane Sonko date de lieu de naissance ainsi de suite def nga defuma ok placé sous contrôle judiciaire la xewoon ci jour bo ba nu yegg ci contrôle judiciaire bi dans la date du du 3 ba le 8 mars yal nañu yàlla may ak jàmm ba bés ñu toog nettali leen ko parce que il s'est passé des choses extraordinaires yo xam euh kenn waxagu ko bu len faté yit ni bobu ci fajar bobu wala fan ye ci fan yi nga xam ño dem ño ko wuutu jooy yu métti yi sénégalais yi jooy parce que newoon nañ leen ki nga xam ne mooy Ousmane sunkoo drogué nañ ko filmé nañ ko def nañ ko lii def nañ ko lii def nañ ko lii lépp nekkoon ay caaxaan mais nag jàpp ni ça y est le trois dinañ ko auditionné parce que auditionné Ousmane Sonko mooy tax ñu pare ci dossier bi comme li ma leen waxoon ku ëmb da ngay wasin kenn mu mës a ëmb Sénégal te wasinut mooy aji Sarr à moom képp ku fi mësoon a ëmb rek wasin nga dossier bi pour que ñu pare ci pour que ñu tourner ko il faut impérativement il faut impérativement il faut impérativement que ñu auditionner Ousmane Sonko parce que dañ koy laaj laaj rek la yow yaa def li yaa wax li li ngeen may wax xaw ma ci dara li ngeen may wax amut. c'est aussi simple que ça donc on en est là ah, nous ceinturer toute la ville ceinturer de bi yëpp créé créer à yeneen bu leen fàtte ni euh, complot bi moo waral li nga euh, euh, morts mars 2021 complot bi li indi le 15 juin 2022 complot bi it ku François mankabu jaare fa dem té yalla xamna ni ndeysaan dem si yàlla François Mancabou c'est l'occasion de la fête des saints tous Toussaint mbokami yi bëgg dem euh, comment on appelle euh, cimetière Saint-Lazare pour Djaleko mais pour expliquer fitna lélé nga kay tal fekk yow sa mbokk wala xarit parce que fitna Adji sar bi amna ak François mankabu ño école école Saldia bu François victime collatérale de affaire Adji

le 3 novembre incha mom moy mooy audition Ousmane Sonko convocation yi ñu ngi doga paré légui légui ni may wax ak yeen il y a trois minutes donc ñuy xaar mu wuy ci ak jamm ki nga xam moy doyen des juges yalla defal ko euh, yaqin bu bu bu bu bu am doole yalla defal ko tawxiit mu gëm ni. kenn mënulul kenn dara lu dul suñu borom mu gëm ni pendant la responsabilité du Sénégal repose sur ses mu wax le droit wax le droit rien que le droit bu xool lu neex Samba bu xool lu neex Paate bu ko defee ah Sénégal jëm kanam mbokk yi lii laa leen doon indil ah, tey waxtu wii may wax ak yéen ah, vingt trois heures quinze jot na. ci finalement les convocations, la convocation est sortie euh,